ba tey kon gars dañuy continuer beneen combat nii xam naa bi itam faw mu bëri coow ndax bari ñi gé wala boo jam ñaajo la ak géejawaay bii yoon dab daan waaw ku ne xam na ko bu jam ñaajo moom itam macha allah comme li ma sànq rek soo ko gisee mën nga jàqar ne sax du mbër waaye su bëree nga xam ne mbëree bëree waaye nag ak nii moom boo ko fekkee mu toog noo leneen nga koy jaawale sax doo xalaat ne kii day sëgg ci làmb ji di bëree parce que nit ku na am nga sa style am na benn image booy incarné ci sa yaram moom xëy na loolu la ko yàlla may mu di incarné façon image bii waaye mbër la moo xam ne soit bi suul yi nga xam ne bërekat la ki mu ko seqal nag muy mbaytin moom moom mbër mu am métier laa ko tudd ndax boo demee Paterson da nga koy fekk ca wanteer wa te loolu dafa baax ci mbër ndax père Max Mbargane da doon wax ne làmb tegandaay la comme tegandaay la nag mbër da am métier te moom da nga koy fekk Paterson am fi lu mu fi sànni moo ku mel ni Paul Maurice mii waaye balaa may ñëw ci ñoom damay wax ñaari mbir ñu nuyoo ba pare dab daan maa ngi lay bëgg di la ziar aouzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di ñaanal sama waajur bu góor yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàgg fi loolu di wër di ñaanal sama waajur bu jigéen yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana yàlla na suuf Tuuba oyof si kaw di sant jam ñaari bi yëpp 1 ba 22 bàyyiwuma kenn di sant sama gars yi ma àndal fi mel ni Balla Ndiaye Zé milliardaire Balaat Jaan ak leen sant bu baax aw ma seen fay di sant monsieur le maire Mamadou Moulaye Gueye di ko woo combat bi combat am la Adama Mohamed Mbaye Pape Seck Waly Faye El Hadj Baba Mal jam ñaaju bi yëpp bàyyiwuma kenn waaw ñu yem foofu doxal ba ci kanam waaw di sant Combaar Sall waaw bu baax xam sama grand suma xarit suma doom lay waaw sant kenkaayari bi yëpp jaay koo koy dab daan bu bari ñi wala boog bu jam ñaajo waaye jam ñaajo bu bari ñi daa mel ni benn dëkkale rek kër yi dañuy séenante Mbaye Tine maa ngi lay ziar borom Géejawaay jëloo ziar Babacar waaw ginnaaw ma sant yàlla liiru ne moom moom Géejawaay sax de maa ngi jéglu ci baat boobu liiru jaan ne moom moom Géejawaay waa waaw liiru jaan waaw waaw ginnaaw ma sant yàlla jisent maa ngi sant samay ñaari waajur di sant waa Géejawaay gi ma jógee yëpp waaw di sant sama gaay yi ma àndal gis ni dund ak Mathia Berara di ko ñaanal xam ci ndam ci combat bi mu jëm moom toujours prêt di bëggee sama booy ñoom Pape Kane suul Ama suul Jun ak sama rakk bi Aruna waaw ah, du bëggee sama doom nday Modou maa ngay sant bu baax du bëggee meeram tamit xam nga waaw xam nga ndax ñoom ñu ngi ciy jàpp quoi waaw ah, du bëggee sama patron la dëggee numéro 2 waaw hmm. ah, di ko nag waaw mbër taxawaay gis nañ ko quoi parce que Serigne Bamba dina ñaanal ndam sa combat ak Eumeu Sène gam si xam ndam lu sedd guy géej waaye képp gu fa am combat rek waaw yàlla may la ndam. ñaanal nga lag waaye dañuy continuer xam naa ñaanal lak sax moom est-ce que doo njëkk régler seen mbir ba pare yàgg dab bi parce que dégg naa sànq fii mu la ay baat ne na xaw ma ci waalo nga ne xaw ma ci Lac de Guiers ne na mbaa doo takk téere dellu ginnaaw arrière non kii moom day wax rek mais man moom dama koy bàyyi wax ji mais bu jour ba moo la gën a xam ne bu dëggalee boppam combat bi du yàgg Babacar man billaay walaay mosoo gis ma arrière ci làmb lu tax doo xaw ma ko sax tap daan mi doo ko wala bu am nay prix damay dox si dama koy duma incha jàpp ko daan ko damaa war a dem nekkul kii moom may téye du ma moromam. doo moromam du ma téye te bu jour lay comprendre. Mbaye est-ce que xam nga ne mbër ngay bëre. kii day mbër kii ah. koo gis ak ñoom sa neex wala ñoom sëñ ngañ wala. baabu ko déggoo ma de kii bu jour ba lay comprendre. Hmm. waaw man xam nga daa fu ma teg sama bët ci làmb quoi mais du kii. du kii kon daal bu ma la déggee ci wàllum dooleeg bëreeg yooyu bokk ngeen ci daal. waaw. est ce que loolu li ngay wax ni loo gëm la wala lu fi ne la. incha allahu li wax nii moom laay appliqué man aw ma leen lu may diit. jege ma ragal waaw wax de. waaw Seydou Seydou jege leen lu may ragal te bu jour ba billaay wallaay bu dëggalee boppam combat bi du yàgg. kon dab daan mi daal ragaloo ci moom lenn. Hmm. Babacar man daa ma teg sama bët ci làmb mais du kii. Hmm. waaw waaw. la moo tëree rek mais billaay wala du ma kii. yaa ngi dab daal wax ji leer na de nee du yéen ñaar parce que comédien sax la wax moom mooy nuyu nag comédien yi parce que ñu ngi bëggal réew mi di def lu ama am solo ñoom comédien yëpp nag am naa ci nag ay préféré waaye ñoom ñëpp laay ziar rek ñaanal leen jàmm. waaw sant yàlla bu baax man bu ma demee ba làmb boole maag Mbaye ma war a bëreeg moom xam nga dama xëy nangul champion champion la ndaanam la looloo tax mu su nekk woon champion du ma ko jël parce que xalaatuma bëreek mbër bu mënul bëre xalaatuma bëreek comédien parce que ñëw ma si làmb ji pour comédie làmb moo ma ñor ma xam ni mbër la mat na mbër ma jël ko mbër boo demee ba ki ngay bëree matul mbër bu lekk avancé mbër gi mu doon moo tax ma lekk avancé mu nekkoon keneen la du lekk avancé làmb la làmb day jeex après làmb dafa am kon xam bu ñuy wax xam ah, ay comédien ay nangam yooyu noonu xam amu fi amu parce que gisuñu fi Sané gisuñu fi Serigne Ngagne kon li ko wax waaw kon comédien kon amu fi place man la ak moom te si kàttanu yàlla ak mbaaxam incha allahu rabbi bëre naa grand combat bëreeti grand combat moom taxul man ma bëre grand combat parce que xam dama dégg ci yenn ay waxam mu koy wax ok mu koy wax non nanguma loolu parce que boo leen xoolee làmb xam ni moom taxul ma bëre grand combat bëre naa soosé maa ne grand combat daan ko moom nag ñoo war a bëre ci kàttanu yàlla dama ne dab doon foowee làmb moo am ci làmb li mu am ci làmb ngi may dégg dab bi doon foowee làmb moo am ci làmb lii moo am ci làmb bi ko doon fooyee mais dab bi jox làmb gëddëm après fan la ko làmb war a yóbbu ñu teg foofu suñu loxo ñu xool lii xew lenn nag moo xew Mbaye Tine dama ko respecté trop sérieusement bu bu lépp rombee parce que lamb mooma booleeg moom après lamb dafa am mbër laa mbër la après làmb dañuy nekkaat man ak moom xam nga suñu xamante day continuer si kaw su ko bëggee parce que man jàmm laay wër ci biir làmb ñu nag amul jaamu maak moom naa bu ngeen buñ daal yi suñ sumee daal ba dugg si géew bi amul jàmm dañuy jongante wala teen la jeex na mbaytin billaay wallaay ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dama koy daan ah yàlla xam na ni dama koy daan lamb ji dangaa waat waat déggoo ma de si kàttanu yàlla ak mbaaxam parce yàlla kattanam ak mbaaxam ak yërmandeem lay defee lépp ñoo ngi taalal suñu loxo moom yàlla suñu borom di ko ko ñaan defal ndànk rek ma wax la dafa am ñoo xamante nii ku fi mel ni waali fay dafa bàyyi léppam ñëw sama kër téye ma ek ubbi salle musculation jox ma dama dab daan ma ne ko waaw ma sant ma la dara am nga taay te am nga tuur ci làmb ku la jàppale nga dem def li muy war a def lépp ci man kon ko wax noonu njukkal bi ma ko war a delloo la ku fi mel ni Adama Mouhamed Mbaye lépp lu may dugg lu ne moo ngi ci yëkkati alalam di ma jox ku fi mel ni Moussa le maire Mamadou Moulaye Gueye noonu ku fi mel ni Pape Amandaw Seck ku fi mel ni El Hadj Baba Maal woo ma ba ma ñëw mu ne ma booy. da nga ah, Maal benn la senegal daan la ñoom. kenn la Sénégal amul ñaar wax ji nag wax ji lenn la baytin billaay wallaay taalaay bu lépp wóyee gënuma pare ci làmb bu fekkee xeex maa ko daax xeex billaay wallaay taalaay damaa jàng non non déggoo ma de dama jàng xeex soog a ban ban na ko wëri ji bu gëstoo xay na dina xam ñu ci bëri dañu réer mbir bële naa mbër bu ne bu ma duggee ci géew bañ dajante runkum su boobaa nga naan est-ce que waa ji moom laa nekkaloon. Ah. damay bañ loolu daal ko. mu trompé wu. na waa ji yàlla xam ni ni dama koy daan man yabuma sax ñu ma nekkal teguma sama bët ay mbaytinde parce que moom wax na ko dafa daan ay champion ba pare wëlbatiku. premier grand combat am mu ne comédien laa yow la def comédien. waaw waaw waaw est la ñu mu doon bëree lan la doon bëree ñoom. <coughs> loolu da yaa ko a laaj. voilà loolu la man du ma ko jàll benn baat xam si communication pour ñun suñu biir foog ñu jàngiwaat communication ni ngay waxee ak san moroomu nawle su ëllëgee beneen yoon bu laa ja rombee doo am yeddaange. du ma ko wax mukk lu ma ko war wax lépp lu ma ko wax rek ci sport lay yem. mais yow dégg naa la fi sànq nga ne ko maanaam booy ñëw na nga mooy comme yaa nga ca Lac de Guiers 2 bul takk téere buy tax ngay arrière. waaw xam nga loolu yëpp sax. waaw déet loolu. waaw xam nga yaa ko loolu yëpp maa ko ko wax xëy na ba ma ko koy wax. <laughs> Ah, ma ko koy wax <laughs> waaye naa nga waal naa mais Lac de xam nga suñu grand la. xam nga champion la ndaanaan la mbër bu ma jox cër la waaw xam nga ah. moo tax mu am li mu am ci laam làmb man du ma salteel mais arrière bi kay la ndaanaan la Lac de ndaanaan la bërekat la. yow yaa ni mbër nekk bërekat moo tax xam nga benn mbër moo ko fi daan kan Eumeu Sène may ko revanche ñu war a dajawaat kon champion la ndaanaan la salteelu moom mais xam nga lan laa bëgg sama bët ci moom Lac de Guiers laa ko teg. déet waay waaw kon xooloo mbay mi non. mbay xoolu ma ko sérieusement ñoo war a daje nag respecté naa ko jox naa ko cër parce que su ma ko daanul du ma bëreeg laa dëggee kon de lag booyee boo waaj ñaari njool ngeen da la na sant li may wax rek tout le temps kon li fi booy bi wax sànq kooña waaw comme ça moom la 96 ans nee na ko mag sama kanam moo tax ma ko booy jox ko cër la nangul nañ ko ko mhm. di sant Ronaldinho mii nag di ko ñaanal ndam ci combat bi waaw dab yoon foofu non sama yoon mu a jege yaay kii man ak moom dañoo bokk. Ronaldinho waaw dañu bokk. boole. jam ñaari laa dëkk dëkk Tëngéej ba ma ñëwee dafa jaar sama tuur am yu ma laaj ma jaar ci turam am ñu ma ko laaj Koña loolu nag ju dara am champion nga naataan nga lépp loo bëgg ci làmb yàlla na la ko yàlla defal mais kii yàlla na la daan ci kàttanu yàlla. làmb làmb la rek <laughs> waaw. man nag nag daab daan mii daal wax na li nekk dangay wax li ne yàgg ma non yàlla amul leneen amul leneen te yàlla xam na ni ku yaakaar ni man ak mbaytin dina yomb yaa nax sa bopp parce que nee na ma da ngay ñëw tëdd ma ne ko non bëgguma ñëw rek tëdd bu boobaa day yomb ci yow waaw nañ jëfante bu ko defee ñu ñëw seetaan si kontaan bàyyi na dem si sëriñ yi naan teel fii teel fii teel fii bu war bi siflee naa ko buux mu daanu yooyu làmb sëriñ la mais ñaari góor yàlla yu jëflante taxaw war na mën a neex quoi. yow bëggoo làmb sëriñ. non bëgguma làmbu sëriñ. dóorante baytin xaw ma sax nu mu tudd. ah doo laaj te day jaar sama tur. yàlla xam na ne ak waxtu yàlla bi. xamoon ci man na ko def yàllaa fi ne. loolu de am na moom doo ngay yàlla de. ñoo ngi yàlla suñuy loxo. waaw waaw. mbay foofu la wasalaam sa waay dégg nga sa waay mii daa mel ni day sàng dama fàdde maay sant grand Paul Paul waaw ak fay bu benn baraak di nga sant Paul ak fay waaye kii 100 pour cent idaali bi yëpp waaw waaw di bëggee promoteur bi tamit idaali ñi nga di nga ñëw ci maanaam kay dama ñaanal quoi dama bëgg na yi gën a jàppale idaali kay des na ko jàppale waaye yow kii waaw kii dégg nga la fi wax kii moom waaw li ma la wax rek man dama koy bàyyi wax ji Babacar comme tan nee na moom dafa jàngi xeex bu jour baa na ñëw dëggal boobu ñu jëflante ma ak mu daanu mën naa waaw ba a ko mën a am. Hmm. incha allahu rek bu jour ba bu taxee boobam dëgg la boobu maa moom bu soobee suñu boobam jëflante. moom ne nag kee la faral. yow foofu ko foo faral ci ñaar ñi. ci kooña combat bi moom waa que le meilleur gagne mais kooña sama waaye la ñoo euh, man Colobane may dóore moom. faral ak moom rek man tamit su may ñaanal wax dëgg yàlla moom laay ñaanal ndam quoi. waaw ndax Baye Jili mi nga xamante ne nii kenn rek. Baye Jili mi nga xam moo ko yor baa Jili sama gaañ la. waaw kon kay waaw moom sama waay la quoi. kon Ronaldinho. yaa nga ca dab daan koña yaa nga ca mbaytin <laughs> bés ba daal di neex en li ma koy wax mooy bu jour ba bu jour nañ neexal làmb ji rek waa na mobiliser waaw teel a ñëw fekk lu neex bi mbooloo mi na ñëw waaw man moom incha allah soxla mu doonta combat bi combat géejawaay la ñetti mbaar baxdaat ñàgg kolobaan Petersen ñëpp a ngi waajal combat bi incha allahu rabbi bu dee duy dama koy duy ba mu fees dell man Mbaye Tine maa leen ko wax. bu soobee suñu borom Lac de la teg kii moom làmb du dox dox ba mu bëri la de Guiers 2 ci làmb. itam loo wax lii. billaahi wallaahi mënut a nekk. làmb du dox dox ba mu bëri Lac de Guiers numéro 2. Babacar kii si man lay tëjee làmbinam. wala déggoo ma. maa ngi lay dégg kii nii si man lay tëjee làmbinam. waaw su ma la waxee rek gëm ah, na ci. yàlla na làmb dox moom. ah ba mu bëri ak Ama Baldé yàlla laa mu dox. daa bëgg bëreeg am. de non xaw ma. xaw ma xaw ma dama ne dama ne su fekkee que ni war na bëreek moom. ñaanal ko quoi pour li ah, gën ci moom waaw yàlla na ko yàlla dimbali. bëgg mu sori daal ba mu bëreeg ama mais man Iba. si kàttanu yàlla kon li muy wax naan ma Iba. Iba jam ñaajo waaw kon li muy wax man Iba si kàttanu yàlla ak mbaaxam su bi sifflé Mbaye Tine dama xay daan jël bu rëy. léegi waaye duñ dégg. Ibrahima Nguer. loolu wër la. booboo gën a dee. waaw loolu leer na ma déggoo ma wuy ma lenn laa gëm déggoo. xanaa da ngeen di wërante tuuti nii sama waay. yàlla ma danga may déglu waal ma bàyyi la ko wax. waaw ba tey mais dama la bëgg xamal dara ah? dama la bëgg xamal dara mënoo dara ci man xam nga lan laa bete bete pire laa du ma tàgg suma bopp lu leer laa la wax duma def nit lu toll nii. mais loo jéem ci man nga wayadi te bu làmbu jaa foo dugg xam nga yaa ma koy wax naa ma dugg nga fi xam naa fii xam naa fee xam non da ngay wax di dellu ginnaaw non kan moo ñëwoon kan moo ñëwoon kan moo ñëwoon téléphone par téléphone. Ah, am fu ngeen daje. non non non non non non daje carrément fi ngay dem sëriñ yi ngay dem. xam nga di leen jox ay 2000 francs moo ko wax li ma la waxee dafa am déggoo lu ma la wax sëriñu man loolu lu ne dama koy wax maa ko wax lu mu yor sëriñu 2000 francs moom ay sëriñam 2000 francs la leen neexalee ay sëriñu moccukatu bopp la yor man maa ko wax bopp waaw loolu noonu xam man maa ko wax par téléphone maa ko par téléphone buñ toogee dama ko koy delloowaat mais moom non pas wootante téléphone dafa am benn émission bu mu doon def gars yi woo ma ci ma dugg ci ma am benn bu may def ñu woo ko mu dugg ci mais moom li ma waxoon si émission bi na ko wax man li bopp buy métti bees ko moccul du wóor de waaw dama ne. bopp buy métti sa waaw borom bopp buy métti moom. yàlloo na ñu mocc. Ah, kon moom moo tax muy wóor ay sëriñu mot. na say maanaam ne sëriñu bopp buy waaw moom moom maanaam. Babacar wuyu ma moom maanaam ay maara lañ. ay maara ay mockatu bopp ay maara lañ ñoom. xew ma moom bi dañ ko wax lu leer ko waaw ni mu lu leer naññi. Ah? combat eh, eh, lu leer naññi. waaw soo bëree ma daan la boo xeexee ma jàngal la. maanaam moom combat dañ wax lu leer nañ ah ah man bëri mbër mu ne man booy la booy ëpp ngemb laa bëri daan leen jaamay de kon yow man booy wax ay waxu ngemb ay ree nga may def jaamay dégg mënoo bëre mbër bu ma ëpp xaalis dam daal man ngemb ma de man doole may laaj non dafa yaa wax ngemb ci ngemb lañ toll ci point boobu lañ toll non pas ay doole bu dee si ngemb nga yaakaar xoolal billaahi wallaahi dooma daan ci làmb man doole dèjà xoolal yow ku laalante. woyu ma non bu leen laalante non bu leen laalante. waaw voilà taxaw leen rek. waaw bu leen laalante yàlla xam ne maa la man non bu leen laalante. bu leen rek non dee naa tey. sama gars yi wóorul ma waa léegi waa léegi léegi baax na léegi dama ñëw ngeen tàggoo am na 9 victoire ci lamb léegi may leen 3 yow ñaata 9 victoire laa am ci lamb ngay wax di kii na lamb looy wax doo bàyyi wax bëreegu ma Dakar mooy la waaye bàyyi li ngay def waay sama waay wuy ma. waaw léegi garaawul dalal jàmm ma daan la loosoo nga la dalal la teg la ci yoon nga dem. waaw léegi mbaytit waaw jeex na waaw loolu dëgg la mbay eh, ñi nga wax ñoo ñoo ma daan ay ndaanaan ñoo ma daan mbaytit moo ma daan kan la war a ah? maam Balla top 5 la war a bëreel ndaanaan la bërekat la non da nga may déglu nag soo bëggee ñu waxtaan mu neex yow kan yow moo la daan ku war a bëreeg Mame Balla wala ku war a bëreeg catégorie Mame Balla mbër yi la daan kan moo fi war a bëreeg kat kan moo fi war a bëreeg catégorie Mame Balla. ma léegi nag léegi dañoo war a jeexal quoi parce que toogaay bi yàgg na waxtaan mi neex na am na solo trop maam ñaaw laay woo mu ñëw am sànni kàddu yum ci sànni moom ak Paul Maurice ana maam ñaaw kaay bu ko defee non non di ngeen tàggoo damay ñëw ngeen tàggoo non yéen moom li ngeen fi waxante mënatu la loolu kay jeex na ñoom ji li ñee jël nañ ko ba pare li ngeen waxante kay leer na nañ yow kii wax na la wax nga ko lu ne waxante ngeen voilà bu la daanee nga bàyyi làmb voilà lool kay leer na wuyu moom moo ko làmb dab daan kon jeex incha allah bu léegi léegi mam ko gisee yow maa ngi lay ziar la jox sa wàcc di nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa fi fekk ak champion yi nga xamante ne ñoom ñoo toog war a jëflante mais en même temps ak promoteur donc comme ni ñu ko waxee rek si làmb lañ ne wala ñuy def dara dañuy jaale ki nga xamante ne mooy suñu génn àdduna Père Balla vraiment di ko ñaanal yàlla fi mu jëm gënal ko foofu yi nga xamante ne fii la jógee di char aussi tamit ki nga xamante ne mooy le président des managers Basirou Babou nga xam ne vraiment mooy suñu kilifa di ko jox wàccuwaayam donc di encourager wala di féliciter ki nga xam ne moo fi jógee di président Alioune Sarr ndax gis nañ fu mu jëlee làmb ak fi mu ko indi def naa def na ci liggéey bu ama amam solo donte que nag mat moo xaw a jafe donc di ñaan yàlla ki nga xamante ne moo fi nekk di Bira Sène yàlla jàppale ko kattanal ko ba yaakaar bi nga xamante ne moom la mbëri am ci làmb ak promoteurs yi ak managers yi ak ñi nga xamante ne ñu ngi nekk sax stade di jaay di suturlu yaakaar bi ñu si am mu bañ a tas donc yàlla na. kaddu waa ñi ngi production muy nuyu ñoom Faye ah ñoom Omar Saliou ñoom Modou Anta Djili gaa yëpp daal maa ngi leen di nuyu ñu ngi production yëpp waa di nuyu tamit Bachir maa ngi koy bëgg bu baax a baax borom wasaare ak suma waa ji ci ñëpp maa ngi leen di bëgg Thier bu Kewel Info maa ngi koy nuyu di nuyu patron Fallou Ndiaye. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di di nuyu waa ahlu làmb di nuyu waa ñi production bi di nuyu aussi mbër yi nga xam ne ñoo fi teew di ay champion waral tey bis li may wax nag moom di ko wax maa ngi koy wax ci kàddu ko Gning production ak staff bi nga xam ne moom la nekkal di liggéey vraiment ñu leen di sant di leen gërëm lu mel ne Alaaji Sëriñ Fay mu baax moomu ak ki nga xam ne moo di Kaana ak euh, Omar Saliou ñoom ñëpp Modou Anta ak Baye Jili Tarkinda ak Grand Laay ñoom ñëpp daal ku lim vraiment da ngay jóg duñ def lu dul li leen sant parce que làmb yi euh, combat yi metti woon ndax ku xool li nga xam ne moom la ñu ngi production taxawal ak yeneen yi nga xam ne moom la ñuy dox suuf xam ne ñoom it gàcce ngaalaam ndax vraiment làmb lii rek mooy sport sport da ngay fexe ba boo tegee li ngay teg mu intéressé nit ñi muy combat yoo xam ne nit ñi dañ ci bàyyi seen xel kon ñu ngi moom itam ñu ngi koy sant baax di ko gërëm euh, li nga xam ne nag moom la ñuy soññee di ko wax mbëri mooy euh, waaye comme ñun ñu ko doxee nii rek bépp mbër boo xam ne bii ne jox nañ la contrat nga respecté ko. nun loolu la ñuy doxee ah, mobilisation bi aussi ñu ci sonnee ndax mbër ak promoteur ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mais ki yëkkati xaalisam aussi di la tëgg dafa bëgg tamit bu la tëggee tey tëggaat la suba kon donc ngeen góor lu ci côté boobu vraiment aussi tamit di lancé benn appel suñu papa sunu président muy Macky Sall euh, xale bi nga xam ne daal di ñu ngi na ko jàppale parce que tey jii euh, mbër bi nga xam ne mooy Ronaldinho di champion ñu ngi koy nuyu wax na lu doy waar te pourtant moom rek moo wax de am na ñeneen ñoo xam ne ñun bi leen di dox. biñ leen di dox ñi ngi taxaw ci tànki temm temm temm pour dugg ci gaal lu leer laa lay wax mbër yoo xam ne lu mu dee dee mat naan feeñ ñoo xam ne pare woon doon ay doomi lébu préparé pour dugg ci ndox mi kon ñooñu tey buy daal di ñu soowee leen vraiment indi leen jox leen métier kooku président lay dimbali kon président na gestu xale bi di daal di ñëw di ñaareel ba aussi tamit euh, production bi vraiment dañ leen di sant ndax taxawal na ñeneen combat yoo xam ne bii ne wax baaxul gars yi dañ ni xam foo jëm doo yegg yeneen combat yoo xam ne bis bu xam ne yegg si nañ xam nga dab daan ak mbaytin mi rek doy na combat champion bu mag bi di koña moom di ko siyaar bu baax ak Ronaldinho nga ñëw ci galan bi ak yeneen yoo xam ne bii ne leer na ma leen 60 person yoo xam ne jox na leen avance pour pareel leen vraiment ñoom it gàcce ngalaama sonn nan guddil nan li ci yonent bi lancé appel sama mbokk bool bool yëpp di wax ne man couleur bool laay défendre man doomu bool laa maa ngi dëkk dëkk bu naan lambaay ñaxap ñaxap laa dëkk waaw maa ngi wax sama mbokk yi nañ ñëw jàppale seen rak seen doom ñun lu ñu am bool lañ ko yóbbu Ndakaar dañ ko def ay tool di ci bay maa ngi wax nag ñëpp képp kuy bool bool bàyyuma kenn di wax nag ñun ñu jàppale ñu te xam ne ñun xale lañ am na lu ñuy bëgg te bañ di tàngaam lu nit ki amul lu dul fa mu dëkk te ñun bool lañu dëkk moom la ñuy defaan kenn ku ne so da ngay wax ku ne day woo dëkk lu mu dëkk waa bool ni jàppale seen doom yi ñun amuñu lu dul bool beneen bi ci topp maa ngi wax bàyyi jili borom léegi léegi lii nii na ma ko ëmbal téyel ma ko bu baax a baax bàyyi jili borom léegi léegi gis nañ ñaani bu baax a baax ñu ngi wax ne ñu kontaan bu baax si yax ndigal seen gàmm gin gàmm woon suuri bële passé ñaanal nañu ko ñaan am solo ñu ciy kontaan bu baax di wax ne ñaan gis nañ ko waaw sëñ bu Karim Mbacke nag moom képp xam na ne man ak moom moom waaw nit la daal waaw mu ñaanal di ma kàttanal di ma dooleel waaw may wax nag sama mbokk bool bool yi comme li wax sànq rek mbër yi ma tëgg nag xaw ma seen fay ndax wax dëgg yàlla mën a ñoxoy morom lañ xam ne dañu jàpp ne sax ñeneen maa leen man mais ay xale lañ maa ñoom ñoom maasi ñun yëpp

mais ñi ngi wax daal waaw beneen bi ci topp mooy mbaytin mi ak dab daan ñoom ñooy bëri grand combat bi ci tournoi bi waaw ci yankaaw ak albarka kayra ak kaaw gourne ak yeneen boo yu ci war a bëri ak caatu daaw dafall grand combat mbaytin ak dab daan ñoo koy bëri beneen deuxième journée bi mooy euh, koña koña demi ak Ronaldinho ñooy bëri deuxième journée bi di wax ne nag waa làmb ñi ngi tàllal loxo ñëpp ñu gën ñoo ñaanal dooleel ñu sponsor yi ñëw ba liñ bëgg a ñu liggéey ko na yu ñuy bëgg nag ñi ngi ci te yaakaar nañ ne incha allah bu làmb doxee jëm ci kanam dinañ gis ne ñu ngi production ñun amateur lañ nekk nañ présidence des amateurs deux ans relève bu fi nekk di làmb bi muy door ba fi mu toll xam nañ ko ñoom bayti ñi seen bappat ak ñoom Balla Gaye ak ñëpp la ñu fekk premier combat ba deuxième combat ba kenn ku ne grand combat bi nga bëree mën nañu wax ki nga bëreel kon itam di wax ne waa làmb nañ ma bàyyi ak bi ma àndal mel ne grand Serigne euh, grand grand Paul laay seen sama xarit ñi xamee ne maa ngi guddeeg bëccëg ñooy ànd ñëpp ñoom Aliou Dieye Kaana waaw di wax ne ñaan nag sama waajuru góor ak sama waajuru jigéen suñu borom bàyyi leen fi ba naal yi ñu bëgg a liggéey ak ñoom ñu àggale ko di wax ne nag képp koo xam ne ñàkk nga yaay itam ñu ngi lay wax ne la ñu ngi lay ñaanal suñu borom mu fa mu nekk fa mu tëdd mu rëccul waaw fa mu jóge di ñaanal sama mbokk bawol bawol yëpp nag di wax ne li may tëjee daal mooy maa ngi woo sama mbokk bool bool yëpp man bool rek moo ma ñor leneen ñoru moom noonu ah, la ñu ngi la woon comme ni ngeen ko xamee ñu nuyu Sénégal yëpp rek di balu ñëpp ak lu ngeen fi dégg nag muy lu wàcc yoon rek jàpp leen doomu aadama moo matul muy ci mbër muy ci ñi fi wax ak ñun yor micro bi mais suñ sañoon lépp lu ñu fi wax rek njëriñ lay doon pour Sénégal mais dañuy waxaat rek encore une fois duñ tàyyi di ko wax mooy ki jiite maa ngi koy xam nga mbëkk biir bële boo sàgganee moom leneen da la ca fekk